bëggoon a wax yokk na loxoom. non damaa bëgg alaaji war nga cee jóg xam nga man li ma la doon wax ba nga ñibbisee Espagne ba léegi mooy xale yii mooy tulee. lépp dëgg la dégg nga sa sa jabar mer na. mer na dégg naa ci wax for naa ci wewu bay mun la mi ngi lay ñaan di wors. waaw sama digganteeg yow. te Tumbaloo koy bëgg a waram ndax moom. waaw ma ngay sañse kan léegi damay exige nag muy woddoo sër di sol t-shirt. Soumboulou sax moom dafa jékki-jékki. tey diwoo net. Ah. te net. sumbulu nettul. <laughs> déet waay bul yàq deram honnêtul bul yàq deram nag. Ah, sumbulu yow lay charmer. beneen bi mooy ko dangal ba mu dang. deuxième na naturel yi muy teg gis nga ko. waaw xaaral tey ba mu dugg si nga gis na mu def. yu ma ko loolu. ah beneen bi mooy. alaaj dang dafa mel ne xale bi sooxu la de. alaaj sa diggante nee ma jàq. nga ma ne la jàq nga seedeel ma. ma wax la ah. yee ko gën a bëgg. ah Baro dégg naa waxtaanam de. <laughs> nee naa ko nag boo moytuwul dina la tëj lu de. Ah. Mm. beneen bi mooy. waaw kër gi damaa bëgg ku nekk def sa déclaration patrimoine yow lala yow def nga ko. Ah? Macky Sall da nee na ku ne na wax li mu am. waaw. réew mi ku ne na wax li mu am. ala sedd bi yëngu na mooy def alarme yooyu. bi alaska kaala oto bi ci suuf la. mooy def alarme noonu. waaw. c'est chambre. Baro na jug. oto bi ci suuf la. waaye leen oto jàmbur bi ah ndeysaan woo na ma ne sàcc yeey ba ubbi oto jàmbur boobu di jël alarme bi di yuuxu waaw Samb gis nga li nga sañse tey waaye alaaji yow Alaska ngelaw lii Alaska ah saal bi dafa xat fay nañ la fay nañ la ah, ma waaw oto boobu sama oto la mooy sone waaw alarme bi moo dof lu alaanu bi dofee non daa dugg ndox ndox ndox gis nga fay na ah. day jékki-jékki rek fay ah, yóbbu li ñu defar ko salaamu aleykum aleykum salaam nuyoo naa fay nañ la kontaan ci yéen rek ndeysaan ndax da a bokk ndey ak baay mais Njaay waaw Njaay nag Sénégal dinañ la takkal garaat nag garaat yi lan sañse merci waay non booy et puis yow say west comme chemise près du corps waaw patrimoine am war na kaa déclaré waaw Macky nee na na ku ne na déclaré li nga oto. waaw nga am. déedéet dañ ma koo jëndal. waaw. amaguma kër dama loué. waaw. loolu da laa yor. Ah, ba fii compte bancaire 700 fa am. alaaji yow sa patrimoine. <laughs> alaaji alaaji xanaa ba balaa amoon patrimoine ñu considéré ko ci réew mi kan <laughs> alaaji xam nga nag. Ah. considéré baro moom xam naa ne. baro moom xala may guitare rek lay considéré ak guitare gi. waaw damaa bëggoon ñu waxtaan tuuti. waaw. li ma bëgg ñu waxtaan mooy gis nga booy ànd ak ay mag. waaw dangay ngay tàggoo ci li ngay def. am na solo de. tey. waaw. andeegu ma gan. lu tax ah, kon kañ lañ tas ngonal li ëpp naa def ah. tey saa daa kaaya ci gan googu laa bëgg ñu waxtaan. toujours du mu neex de. ndax gan gi may andi. waaw dama cee bëgg xam seen avis. waaw maanaam sunu xalaat daal. bu ngeen ma joxee feu vert. ma jëli ko. waaw bu ngeen ma joxul feu vert. waaw toog lekk lekk gi naan naan gi te ñibbi. waaye heure bii buñ lay joxee feu vert ngay dem ba koy jëli. booy guddi na day guddee. jaay gi ndax day bëri pax. man damaa bëri feem. da koy woo téléphone kon mu ñëw. koo bëgg a indi. Soriba laa bëgg a indi. suy kooku Soriba. Soriba xam nga Soriba. tëgg la waa yow bu fekkee da ngaa déconnecté bu nit ñi di wax da ngay déglu. kat bu gën tey. Ah, bambara la way kat la. Eh! ndaw di xam naa ko. dégg nga Soriba rek nga booy boobu lañ fi ji ñoon euh, affaire vol yooyu. waaw moom dugg ba génn. booy boobu xam naa ko. booy boobu toj na moo toj. olof la bi olof la ki ngeen di wax. alaaji rek lee la ti ah, alaaji man kat da ngaa wax. tey ku ma xam laa ilaaha illallaah seydina Muhammad rasul mooy Soriba. waaw kooku mënoo ko fay indi. xamoo ko yow. kooku moo gis si internet bi wala ci yooyu yooyu gisoo ko. dañ koy jéem ñe dafa duggoon ay kër. waaw dafa sàcc waaw waaw booy. ah Ndiaye kooku eh, mënoo kaa eh. indi. dañ koo dañ koo tuumaal. Ndiaye loolu kooku mënoo kaa indi. kenn waxul ni dëgg la wala du dëgg ndax moom. Ah. giir mu am. waaw demul ci benn journal wax fa waaw taxawul ci benn rajo wax fa waaw demul benn télé wax fa kon ma gëm ni mënoo koo indi ndax moom leeralul mbir mi kenn kenn xamul mu demee dinaa leen xamal Sénégal rumeur dafee bëri mo suusa bona laama taa ko ku ñeme ragal jam jam da doo falu wala ñi wona mo suusa bone laamataa ko te et puis sa hoore oh, ñiiwa waaw ettikortaa ko dongal waaw man kay dama bëgg ngeen wax ma rek ndax accordé ngeen ma mu ñëw na ñëw non ma ne la bu fekkee mën nga koo ñëw ndax loolu ñun ñoo koy njëkk a ak surprise boobu boobu mën naa ko ko ko mën andi man yow waaw kon da nga nekk waaye nag ci laa xam ne nag yow aay nga kon teel ma sama waa orange money gi ma ñëw. ah waaw waaye saago orange money bi waay. non chaque jour chaque jour ak saag bi may Sonatel ah. bi waay. chaque jour ak saag bi may andi. mi ngi doxal. non ñoo ah, ñii cam. waa kay la kii. may leen ma ma ñëw rek. soo ko mu mel ah di nga luñ leen dap. may ma ñëw kii ban raaya. certification ISO. ISO ci réew meeg bitim réew. lañ leen jox lañ leen am na sécurité baax na yomb na yay am. waaw Ndiaye nag Ndiaye nag gis nga Ndiaye. re asalaamaaleykum gan gi maa ndal tey. moo nami mon frère. eh boy. foo wéeru woon yow kontaan naa. fa xasal sa loxo bee waay boy. waaw waaye yow maa du miin boo gis wéeru fa. non non oto bi ba muy def ana booy sawru ba ba nga doon jëli. mi ngi nii. boy bi xam naa ko. ak booy sawru ba. boy bu mën a sañcala nag. di sama xarit. waaw xanaa ak kabar bëri xarit. di sama doomu ndey. dëgg la. di ko am jom. xale la waaye dafa teel a. xam ne ci baatam bi la bi la dañoo nekk ci hiver. la. waaye dafa teel a xam ne puso. waaw dafa réer rek xale da koy for. mag da koy for waaw léegi ñoom ñoom loolu ñu koy tuumaal ci affaire yooyu lan la. loxom set wicc. mu mën a bokk ki mag la. dëgg la. kontaan naa. excellent toogal. sagal nga ma. dal leen ak jàmm. baroo ngi nii mooy xalamkat bi. waaw moom. alaaji góora. sëwru na nga def waaye ci jàmm doom du sëwru ah? bay doomi jàmbur di ngay wax sëwru a alors waay <laughs> booy wa toogal man de booy bi ñu ñu sol kenn xamul lan la man de man booy yi seen col ko gi ñuy sol léegi jaaxal na ma waaw yow karaw yi nga man ci jommale laa fii léegi ñu ne la mënoo kaa indi nga indil ñu ko booba eh, nag da doon da doon da doon sonde kay bu dëgëroon ah. mu ne booy bi dellul. <laughs> booba ma nga ca booba mu bi toog. ah d'accord ma ñëw waxtaan ak moom. ñun xam nañ dëgg la mu ñëw. Mhm. ma fekk ko nag ci liggéey. ndeysaan ndax ku gëm li muy def la. Mhm. ku bëgg li muy def la muy sumb lu bàcc lii. sempre buru ngalam yow booy dafaa fi woon benn bi yéeg ci scooter lu géej yooyu. kan scooter di dawal ay scooter ci géej. sumb lu xaar ñu présenté ah. ko ba pare ba mu toog. dinaa ko laaj de. waaw doo xaar ba mu toog ah. ah. dégg nga. xam nga ko mais nii nga defati. ñu jox mën a lool. yaa booy doo bambara. Eh, te te te mu ngeen ànd mooy problème am moom. Ah, ay bambara ngeen. waa suuri ci la nekk. xam nga ko namu naa la yow. mais Sénégal namu na kii. yow man yow laa xam mais tey foog nga wax ak jamono. waaw foog ma wax ak jamono tey day neex. foog ma wax ak waa Espagne dañ lay yónni nga de. yow nag fexeel ba woddu. <laughs> ngay la woddu li baax na woddu pour lan del woddu woddu pour am na lu ma wax kii après di ngeen ci ñëw waaw bokkoon ci coton club boole naa la ak ñoom togg yaa ngi ñëw lekk yaa ngi ñëw ñoo ngi ni nii en face ah, dama jëli ko te ñëw nga teral sama gan gii sori na nga def sori nga na ci jàmm dalal ak jàmm ci kër gi man na yàlla dafa def fële ci Espagne rumeur rek laa do dafa sedd ah tey fii laa génn fii Alaska la fii laa sedd waaw dafa sedd de waaw dama doon dégg rek. ak di la gis ci internet bi mais mosuma gis jëm. di nga naan ataaya booy. waa tuuti rek. wa yow looy fas yéene càkk na ay tuuti rek di kii. ah mais loolu loolu mooy jasaaku naaxoon ko. dinaa naan kon nag càmm waxoon lan. ah naan rek. waaye bi yow. mais xam nga lu tax affaire bi neex ma. booy bii. yoon newu ci wala doo naan. ah waaye alaaj mën naa def doo naan. waaye lewal kenn du ko naana waaw an kii saay laay defar tey saay ok du attaaya de saay waaw waaw waaw yi Maroc ak Arabie Saoudite nga koy <laughs> Mangaan ca Maroc moo la koy moo ma ko jàngal attaayam du suukar de moom déedéet euh, li tax ma wax loolu booy bu calme la kii bu doon joueur football kuy mën a dëgg bal contrôler ko lay doon ndax situation bu amee ki la gën ni tekk moo la ko gën a mën a la loolu dëgg la. te ñi siiw ñi. la sa maam doon wax naan ku boot bukki xaj. baw la baw la. Mhm. mais xaj bu lay baw. du la ne wow rek nga ni tëqët di daw da nga naan teg xool situation bi. waaw contrôler la ko. ku ne woo ko mu lànk. voilà lay fa ma fa la ma demee pion. lu tax ñu woo la nga ñëw. foofu nga ma demee pion. sama première question. lu tax ñu woo la nga nangoo ñëw ci sunu kër gi Soodu Ba la lu tax. waaw man salaamaaleykum di nuyu waa Sénégal yëpp. di wax ni di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak. namoon naa leen. ndax ni avant tout. fii suma kër la. dëgg la ma nekk Medina juddoo fa yoroo fa màggee parcelle. ah booy Medina nga. waaw. fii dafa bëri ay raison yu tax tamit mhm. yow ngay sama waay di sama xarit ñu yàgg trop loolu barki démb la baro mi di sama papa waaw donc kon <laughs> euh, sumbulu di sama suma jigéen donc Youssou Ndour di sama papa mhm. bëgg Medina mhm. jàppale Medina donc kon suma fi ñëwee war naa fi ñëw. dëgg la ma fi ñëw war naa fi ñëw. kon da ngaa war a ñëw naa sama kër. kon ñëw na kër <laughs> très bien. te ñëw kër gi. waaw damaa bëgg. waaw li tax ma andi ko ci ngonal bi lépp ci waxtaan. waaw ñuy lekk naan. di leeral li la ndëm. waaw du dëgg copain. kër DJ Boubs giñ ko jiiñ ne dafaa dugg lan la. dugg la dafaa dugg def fa lan. jël fa. day leer dafaa dugg jël fa waaw. ñu ko koy jiiñ <laughs> kër DJ Boubs DJ Boubs kër gi la nekk. waaw moom muy booy Medina mel nii mu war a mel di way mu neex lool bari fans xanaa damaa defe ni doful doppooralul bay def yenn baches yi ñu jiiñ ko nii ay kër la dama ko ci limal benn par benn ma bëgg nga tontu ci benn par benn kër DJ Boups bi lan la lu fa xew. waaw saa yoo dama lay fay. waaw xaalis bu bëri laa lay fay. télé bi fi nga gën a nooy. moom mi waaw nga gën a nooy. waaw waaw waaw ah, ndeysaan pour rappel. waaw li tax nga laaj ko loolu. waaw alaaji nekk ko fi waaw xaw ma de. dañ ko fi jiiñoon. ñu jiñ ko fi maanaam sàcc. tëj ko fi kaso. mu tëdd près de six mois prison. Ah. waaw looloo tax alaaji Sanex Samb ma laaj ko loolu ne ko kër Dija Bub su muñ la jéeñoon da nga faa dugg tëb fa sàcc fa nu mu demee ah leeral ñu loolu waaw eh, donc euh, papa ma jox biduke bii da yàlla def na waaw waaw nekk ay ndaw quoi alaaji nay leer di di ñaan yàlla sutura yàlla dolli ñu sutura donc teel a sottale baaxul dëgg la too waaw baaxul. waaw baaxul quoi. Mhm. comme ni ngeen ko déggee. waaw toog naa suma kër. waaw ay nit ñëw fa jàpp ma. ay nit ñëw fa jàpp mhm. ma ci yoon. waaw kaay wuy buur loolu lañ koy waxee. dem naa police ñu jël ma def seeni enquête yóbbu ma jébal ma procureur. non non mhm. def seen enquête yóbbu ko. yóbbu waaw. Mm-hmm. maa koy déglu. jébal nañ ma procureur procureur posé ma ay question ci lii. ñu jotu dégg ci rumeur yi. waaw journaux yi donc ma tontu ko ci na mu dinañ la denc def ay enquête dinañ la woowaat. Mm. yàlla def ma def un mois foofu. ci kaso mu woo ci kaso bi mu woo ma. rëbës rëbës saa yi ma fay rombee mhm. def ñaan mhm. mm. am na solo trop te sénégalais yëpp leen war a defal ñaan dëgg mhm. donc ma def weer waaw ñu mu woowaat ma posé ma même question ma tontu ci mu delluwaat ma mu delloowaat yaa ngi dégg booy bi li muy wax koy déglu copé daa bëgg nga ñeme wax ji mu kaddu gi jóg mu def cinq mois et quelque ma toog rek ñu woo ma bàyyi ma comme ça comme ça donc le lendemain magum jëm la je suis responsable. Mhm. xam naa suma bopp ma ànd ak suma waa kër sumay avocat ma dem ba ci commissaire dem ba ci juge bi. waaw laaj ko ni yëf yi demee mu expliqué ma donc yaakaar naa loolu dinañ ci ñëw mais ci côté bi nga ma laaj côté DJ Boubs bi kooku dinaa ci sawar tontu parce que mhm. de un suma suma xarit la. waaw suma suma suma grand la te mhm. yàgg na ma jàppale ci musique bi quoi donc euh, baax la ñu bokk Medina tamit aussi mhm. donc man fële laa déggee ay rumeur DJ Boubs bi ma génnee bu mu def waaw bi ma génnee bu def deux jours la toog waxtaan ak moom moom mun ngeen ko woo ah, ci kër gi lañ nekk ngeen laaj ko su démentir lépp moom mosul wax ci benn presse mosuma mhm. porter plainte mosul wax loolu yëpp donc def nañ ay test empreinte xool nañu mais confondre ak yi ñu jëlee ci. kër Dj man xaw ma kër Dj Boubs. <laughs> xaw ma mënu ma la wax fii mooy kër Dj Boubs. Mhm. amul benn artiste. bu la mhm. mën a wax man xam naa këram ku dul Wally Seck. waaw. Mhm. mu la mën a wax man xam naa ni nii la këram mel. waaw. amul benn animateur bu la mën a wax ni xam naa këram ni mu mel. comprendre donc DJ suma gaañ la. lépp daal tegu ci ay rumeur. Mm. waaw waaw. bi ma génnee ndekki nañ teeru bi maag moom waxtaan ci lu bëri. mu encouragé ma. Mm. ma ni moom nee na ma sax moom am na ñu bëri ñu ko ne ko demal wax mu leen booy bi defuma dara. Mm. te du wax dara kon. lu yàlla xam doy na ko cëy Sénégal ca mbirum dijee bub boobu. waaye dijee bub googu. Uh-huh. moo ca gën a tuut. Uh-huh. jibi daraame sax tudd nañ ko ca. jibi daraame mooy bambara boobu. jibi man xam naa lépp. waaw man xam naa lépp. jibi nee nañ la dugg nga kër jibi daraame. nee nañu dugg na kër jibi daraame. Hmm. deret bi daw suma yaram mooy daw ci yaramam jeexal na wax. jibi daraame. sa mbokk la. loolu it ay rumeur la. suma cousin la. sa cousin la loolu it benn maam ay rumeur la xaw ma këram. Kumba Gaaw la Cheikh. xaw ma ko kuy fëgg. benn yoon laa ko mos a gis nee nañ fëgg nga ko. dégg ko benn yoon laa ko mos a gis. waaw muy émission RTS ñu bokk ko muy Korité. xamoo sax fu këram féete xamoo sax fu këram nekk. dañ bàyyi di wax këram fu mu féete mais dama ko def dara. waa léegi kon kon yëf yi lan la. mais am des na benn. waaw que man copain li ma la wax rek. waaw lépp nay leer rek. waaw man lu ma fi andi rek xam naa ko. waaw mais moom mu xam. waaw euh, am na suñu suñu xarit bi. waaw ah, Paco Jackson Thiam. Paco Jackson Thiam tamit dégg naa ko. tamit nee nañu Alaaji ñoom ñu ngi bëgg a bari de. waaw dëgg la. loolu yëpp dañu ko ah. accusé woon. wax nañ ko waaw. <laughs> kii kii jiil nañ ko fi lu ne. waaw Paco Jackson tamit nee nañ dugg nga këram jël fa. kër Macky Sall rek da lañ bax. kër Macky Sall pale daal lañ fa bax. Uh-huh. waaw Paco jour ndeysaan maa ngi koy nuyoo passage. waaw jour combat Garga Mbossé Lac Rose. bii passé ñoo nekkoon euh, ma ak moom euh, Buntu Esat. Mhm. ñu waxtaan ci lu bëri. ndeysaan keroog dafa wax ba dënnam jóg. ndeysaan ne man Soriba wu ma la plainte bi gars yi dundee ci net bi man bind naa ne leen Soriba def ma dara parce que xam naa ki ma jëlal jigéen la. Hmm. te foo ma woowee ma wuyu leen. fu ma taxaw dama koy wax. bismillah yow defoo ma dara. Mhm. kon foofu tamit. Euh, gis nga lu jigéen boobu. Mhm. yaa ngi may xool. Mhm. Mm, am na mën naa la cee mën naa la cee seedeel man. kooku nga tudd sama xarit la. càccam moomu ba mu ci waxtaan man dafa ne ma ñi ma sàcc ay jigéen lañu. Mm. bu dëgg rek li nga wax. na. mais moom ñàng na ñàng koo xam ne man. alaaji lii laa doon waxtaan ak yow fu mën a yàq rek dañ fay yàq ñoom yàqul rek. waaw mais xam nga man. waaye mais nag man jékki-jékki pourquoi yow. pourquoi yow quoi. voilà yow. da ngaa takk lu kenn takkul da ngaa mën lu kenn mënul da ngaa am lu kenn amul wala da nga am ñooy gêné wala lan la lu tax ñu jékki-jékki rek ñu soo. man moo nekk ci waxuñu Sanex waxuñu Kébé ah waxuñu kenn waxuñu Alaaji. lu tax yow. waaw lu tax man loolu yàlla la. ndeysaan suma grand da ko doon wax du yéen du man yàlla la mm-hmm. muy nongo koy jaale mm-hmm. di ko ñaanal yàlla na suuf oyof si ci kawam mm-hmm. du man xamuma munuma dama juddu bëgg a way baromee mun na ma seede dama judd ci musique waaw bàyyi jàngalu ma musique waaw yaay jàngalu ma dama màgg daan yàlla moo ko def ci man may jàng kon yaakaar naa ni mënoon naa dem Europe bu ah. mhm. may commencé mhm. ma dem musique foofu parce que damay joué kora naru moon mhm. def sambalax waaye naru moon def sambalax su ma toogee fii di def sama musique bëgg suma réew la bëgg suma dëkk mais franchement xaaruma ci woon lii yëpp lu jot a xew yëpp xaaruma ko woon mais yow ba nga koy def sentir woon ne am nga ay noon ci li ngay def par exemple non non mënuma ko woon santir parce que xol bi ma yor la man damay def ku ma gis jàppale ne sama bopp ku ma gis damay jàpp ni sax yaa ma gën. Mm-hmm. parce que non yow yow yow yow yow alaaji mm-hmm. man li ma man xam nga damaa dañ kumpa li may moom mu ci ba léegi parce que ñiy way ñëpp bëri nañu sóoru ba ñiy way bëri nañu ñi siiw bëri nañu pourquoi ñu jël sóoru ba fekk ko këram ni ko coppet yóbbu ca procureur posé question tëj weer delloo si posé waat question tëj juróomi weer yooyu boo ko boolee muy juróom benn weer ñu jékki-jékki relaxé pourquoi yow pourquoi yow yow pourquoi demal ku def dara waxoo defoo yow ci ndum ñu jékki-jékki rek ñi la cil mét def la loolu pourquoi xam naa la man loolu laay laaj daal loo xam ci weex dunk kese nekk jeune bu bëgg a percé ñeme loolu am fit te bëgg li muy def dëgg la te di ko jàng ñu gisee jékki-jékki mosuñ ma gis si simb mosuñ ma gis si mbapat gis Soriba bu fël. waaw di perse hmm. di def musique am normal. dëgg di jot ay message de menace. waaw ay message de lu ne lu ne lu ne laa ci jot. ñu lay menacé. lu ne. Mm-hmm. ay ay police ay SMS de menace. dencoon nga SMS yi. yëpp mu ngi police waa police gis nañ lépp. Mm-hmm. franchement. alaaji wax day tëngoom seede waaw dëgg la day tëngoom seede man xamuma waaw lan laa def nit ñi xaw ma lan laa leen def mais defuma leen dara menace yooyu avant am problème yi la avant may am problème yi ah yow moo ne sonnoon nga ah. defuma leen dara ah. hmm, vas-y def lu ne def nañ ma ko foog ni man dama bi may am problème yi waaw yi mi ma fekk ci su ma jabar accouché ñu césarienne ko dama wax suma vie privée ndax wala déglu ma su ma jabar accouché dañ ko césarienne ma amel waa hôpital xaalis ku jël ay million mu jaamu di nga am loo leen faye def naa suma anniversaire Madison ma ci don donte fees na hmm. mais dañ ma def lu garaaw ci biir yi ba waa Madison dañ ma dañ ma porté plainte police quatrième ma yore leen xaalis quatre cent mille francs mënu ma leen ko fay après problème yi ñëw ñu ne man dama yor dama jël ay millions jàmbur te fayu ma ñooñu hmm. non mais bu gis ma clip dawal ay oto yu rafet donc ñu ne jàpp ne booy bi denc na ay milliards te fi laa jël képp kuy clip fii dañ lay abal ay oto da ngay am say nit yu baax ñu abal la wala nga dem loué man damay dem loué oto jàmbur. Mhm. dem def suma clip pare delloo ko. Mhm. Hmm. dernier moment bi ma def non borom dafa ma porté plainte parce aw ma lu ma ko doon du ma ko fay. yoruma lekkuma naanuma mais damay ñaan ndimbal. Mm-hmm. musique laa yaakaar yaakaaruma kenn ci àdduna lu du musique. Mm-hmm. ba may tuuti ba léegi moom laay def kon franchement su ma bàyyee musique xaw ma lan leneen lan laay def. damay mm-hmm. ñaan ñu gën ma jàppale te gën ma sànni ñaan. ci lii may def te bëgg ko quoi. parce que mi ngi wax ah ku dégg lu muy wax xam ne. xool lay waxe waaw ki waaw mi ngi wax jooyu xool. Mhm. donc génn bi naka la demee. dafa am caution boo teg wala liberté provisoire la wala sursis la wala grâce présidentielle nga génne. déggoo wax ji de. Mhm. ku amul loo lekk mënoo teg caution. dem na ba suma avocat mooy moo may fekk fële di ma jox wala su may fans. Mhm. non damay gërëm sumay may fans. tax nañu sonn ma ci kaso bi. waaw sinon. dinaa fande foofu. waaw. ñu ngi doon taxawu nañ ma mhm. képp ku nekk foofu laajal dama nga laaj renseignement. Mhm. dañ doon bloqué sax samay visite ndax ay doomu aadama. dañ doon bloqué. samay visite am visite am man dem naa fa ba mujj gi par groupe lay jël. par groupe lay jël. ndeysaan par groupe. comprendre nga. waaw donc ak suma avocat maa koy ñaanal parce que jàppale na ma fayu ma ko ah. dafa gis ni benn kii dafa sonn te te te tuumaal nañ ko dama mhm. ko war a jàppale di yëkkati moo ninam di ma jox di veillé ci sama njaboot mën naa xam sa turu avocat waaw mhm. Mara Fall gërëm ko non maa bu baax nga gërëm ko maa ngi koy kooku loolu dinañ ci ñëw après incha allah donc li ma génnee waaw tribunal ba turbinal dañ la woo def nañ seen enquête waaw jël nañ empreinte yi waaw avant tout ah. waaw waaw demee ba def une semaine. waa DIC dañ ma jël si bii pas du central dégg ñoo ma jël si. waaw police su DIC. fan foofu may wax waa DIC ñu may dégg. foofu mhm. foofu ñu yóbbu ma. bi nga defee une semaine. une semaine am benn maire bu ñëw taxaw xool ma ma xool ko mu waat ci alxuraan mu ne man maa dugg këram 17h ma jël arme ma teg ko ci boppam ma jël vingt 26 million ak or. te police ba la ko waxe DIC. boobu génn naa central ba ñëw 100 mètres ñu waa dig jël si waat ma. yóbbu la dig. yóbbu ma dikk yàlla buñ fa dig dara. waaye yow ana boobu. mais dama jooy tontu ma ko. dama jooy inspecteur bi moo xool xam ni franchement kii du ci dara kii liñ koy wax yëpp defuñu. suñu dañoo xarañ de. Hmm. police Sénégal. xarañ nañ trop xarañ lool. waa léegi def nañu enquête. kon kooku kooku moom nekk yow doo doo ci man du ma nekk célèbre. ñëpp xam ma ma def ay clip di feeñ ci télé bi. Mhm. <laughs> dem yor pusale dem dugg sa kër teg la goon defu defuma max defuma dara nga a xàmmee nga ma man nga gisoon nañu wax on dit la foog sénégalais yi yeewu. yow waxtaan saa neex. waaw mais mais mais boobu moom nañ koy bàyyi rek noonu moom ci biir dëkk bi muy dem. te wax njombe gu tool noonu yëpp <laughs> ñu bokk ci biir dëkk bi librement. ku mu tooñ du man waaw baal naa ko. waaw yow mën nga koo baal mais justice yow moo moo man waxuma yow pour nga baal ko wala nga ñàkk koo baal mais yow moomoo justice mm. moomu ma ko keneen moomu ko maire ba dafa dem ba fa mbaxana doonee benn ni sóoru ba daf ma teg pistolet amaana loolu bokk na ci li tax ñu téye la amaana mm-hmm. mais léegi kàcc yu tooy yooyu dañ koy bàyyi rek nit ñi di ko nar ci biir dëkk bi rek di lor nit ñi a duñu bàyyi dañ ah! def seen liggéey dinañ def seen liggéey ah! dinañ def seen liggéey bi yow fi nga koy teg dinañ def seen liggéey alaaj bu deuxième bi ñëwee dina métti de mais gaynde mais man comme ni ma la koy waxee dafa am lu nga xam ni man témoin laa ci ah waaw fekk naa la prison seet si naa la fa man hmm. mais moment yi nga nekkee prison uh-huh. ma ñëw nga ne ma mais dañu ne ñi agressé Wally Seck waaw maa leen yónni te boobu mi ngi fa ah boobu it ci la waaw waaw yow booy yow waaw yow waaye <laughs> am nga sëriñ de. subulu. waaw waaye yow Mbacke Mbacke yow booy loolu yëpp Mbacke. yaa moom mu teg moom. ngeen ah yow yaa yónni tamit ñu àgg na sa waali seet. ah ci dégg-dégg. ci dégg yow yaa leen yónni. foo déggee loolu. foofu laa ko déggee de. prison ci prison bi laa ko déggee. loolu mën na nekk <laughs> suma gaayan la te sànq maa ngi koy wax sànq ne. amul benn artiste bu mën a taxaw ne xam naa këram ku dul Wally Seck suma gaañoon suma grand te tey su ma fekkoon ñu koy agressé ma tey la suma bakkan. dëgg la. Hmm. du lu mu wax sax moom xam naa di mër gars yi ñooy wax rek. non du peut-être waaw xam nga. waxu ko xam naa xolam. wax yooyu xam naa toll ci man. Mm-hmm. te dafa xew mu koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci musique yàlla na ko yàlla def te ñu bàyyi détail yooyu noonu. gars yi dañuy jaxase. artistes yi ñu ñëpp ay benn la. moom te Sénégal bëgg naa suma grand te li muy def nice na te mun na way bëgg naa dem de sérieux Soriba man li may ñëw ak yow mooy yow mi mm-hmm. naka nga dunde Soriba man la ñuy jógal dëgg nga man bëgg naa toxu ah toxu dem fan non Sénégal c'est plus espoir <laughs> foo dem kaso gi fan nag ma wax non du kaso gi lan la baat ki Mouhamad sosalaate ji ragaluma kaso man sosalaate ji man ku ne xam na ma man <laughs> man ku ne Thiès laa <laughs> xam nga lu ma ragal ah. lu faux waaw te réew mi dañuy dund ci lu faux ñu baleen ci xamuñu lii ñun lii du Sénégal Sénégal du ay kàcc du ay soxorante du ay du ay du ay yu bon yii te alaaji waxtaan naa ceeg yow réew maa ngi yàqu ndax yii mhm. ñi ngi koy seetaan te fa mu nar a jëm du baax alaaji nga ni waaw soo frère li may ñëw ak yow mooy naka nga dunde sa nekk prison par exemple bañ lay jël di la yóbbu. yaa ngi jël koo xam ne xamoo ko. Mm-hmm. waaw ak ni mu silvissé premier guddi ko rek xam naa nee naa ñaari guddi alaaji <laughs> alaaji sa premier guddi prison boo ko xamul. waaw ak sa premier guddi bàmmeel ñaar ñu. nit ku nekk war na di ko xalaat. ba nga ne yow yaa ngi dugg foo xam ne xamoo fa na nga dunde loolu frère. waaw sant yàlla parce que dañu naan boo déggee ñu ne yombal xiyam bu ndaw. waaw yombal yombal bu ndaw. parce que yàlla lépp fële def ko misaal ci kaso misaal na ko ci àdduna sa laay wax mooy kaso. kaso ñaar moo fa am. waaw dugg génn baax ba faw mu ni dugg génn baax ba faw dugg génn baax ba faw wala dugg génn bon ba faw dëgg la. ñi la dàq jaamu yàlla. Hmm. gën la jàng alxuraan. ña gën la jege yàlla ñu ci kaso bi. Hmm. Hmm. am ñoo xam ne defuñu dara. te ñu ngi tëdd seen giiru dund ci kaso bi. te defuñu dara defuñu dara. dinañ ci waxtaan am ñoo xam ne def nañu. Mm-hmm. te ñu ngi foofu. au passage damay ñaan nguur gi ah di ñaan képp kuy citoyen képp ku nga xam ni nit ku ñuul nga loolu laay wax képp kuy nit ku ñuul baa muy nit ku weex dañu jàppale ñu nekk ci kaso bi te ñu gaaw àtte leen ñu xam fu ñu féetee. sonn nañ sonn nañ sonn nañ teglente bi non lekk gi non coono gi. sangu bi dundin bi am ñoo xam ne seen parent yi duñ leen seet si nga la kuy képp kuy sénégalais da ngay nit ku ñuul uh-huh. te am doom mu nekk ci kaso bi bul xool li mu def lu deful dama nga soutenir ko parce que métti na ba ci kanamu yàlla métti na da ngay gis gor boo xam ne leer na nit kii doomu gor la mais nañu di la ñanwaan li mu lekk nga xam ne ni kii bu noonu sa ñoom du ko def waaw du ñu lekk ñoom hmm. dinañ lekk parce que lekk bi du noonu waaw parce que ñoom tey boo amul mbokk pot bii nii nga yor. Hmm. yëkkati ko. bii nii saa yëkkati ko waaw bii. waaw bu gën a ndaw. waaw moom la def kopp ceeb. waaw jox la. waaw moom mooy sa ration. sa ration lan añ. kilo mburu bi dix personnes ñoo koy bokk. kilo mburu dix personnes. lu gën a tuuti lii añ rek. ñoo koy bokk. mooy ndekki mais lii kopp ceeb la. fekk naa la fa nga ne ma Cheikh ma ne la naam nga ni ma fii ba 40 ans ba may am 40 ans su ma neexee du ma bindu way waaw du ma ndax du ma manqué ci man lu may way loolu lan la nan ga amee da nga da nga amoon temps bi pour di bindu foofu wala. inspiration bi waaw. waaw foofu loo amul ci àdduna. temps boo amul ci àdduna surtout ma musiciens yi mm-hmm. man mooy musique man dama paar man mm-hmm. du ma ne bëgg naa dem foofu mais defar na lu bëri ci man dama naan defar na suma àdduna mm-hmm. xam naa lu fa lu bëri te denc naa ay mbóot yu bëri yoo xam ni xam naa ne il est temps ma jox ko yi bàyyi jàmbur fii ku nekk ak liggéey naa fa loo xam ni ah, bàyyi jàmbur waay naa xam ni franchement gëm naa ne mën na ma yóbbu mm-hmm. waaw ndax foofu fa la yàlla ne laa wax de foofu laa bëggoon foofu nekkoon dëgg la mm-hmm. fa yàlla ne mm-hmm. damaa bëgg nga gëm ni kii damaa bëgg nga gëm ni yàlla boole na la ci boppam mënul woon jaas ci yow yàlla boole na la ci ñi mu bëgg boole na la ci ñi mu gëm mm. waaye Macky Sall ak gouvernement na mm-hmm. nanu réunion mm-hmm. diisoo mm-hmm. weccante xalaat xam ne ñi ci kaso yi sunuy frère lañu sunuy nijaay lañu sunuy papa lañu doomi réew mi lañu ñun dañuy dem di fa jouer ji ay théâtre leen bégal mais ku ci waxtaan ak yow da xam ni kii sonn na nañ leen leen dimbali tëj gi rek dafa metti bu sàkkantuma laak ñàkk jox gi lekk ba suur nit ki ak lu mu metti metti metti metti nay lekk ba suur di mën a sangu mu set mhm. fi muy tëdd yellante kon du basang dër la sax mais na tëdd leer na nañ leen dimbali ñi si kaso yi dafa metti waaw parce que tëj rek dafa metti tëj rek pour man corruption mooy mais tëjal rek na na na bien quoi te pénitencier yi duñ ci dara franchement ñoom seen liggéey la def mhm. tey da nga gis ay garde yoo xam ni dañ lay tëj woon la ginnaaw mais seen xol ndeysaan dëgg la seen liggéey ay nit rek la ñuy def seen liggéey la ñuy def mais léegi gaynde ba nga génnee ba nga génnee koñ ba hmm. ah comico ah nan nan nan lañ la parce que fii boo génnee prison rus nga rusoo. waaw mënoon nga xat nga xatoo. pour man may rus. waaw waaw non laaj la ñuy rus. waaw pour. Hmm. xam naa ci famille bi ma bokk. waaw xam naa lu ma capable. te su koñ. xam nañ lu ma ñeme def lu ma capable def ak lu ma capable def. waaw dinañ lañ la ñu def lu dul soutenir ma. Hmm. jàppale ma. dolli seen ngëm-ngëm. xam hmm. ni xam nañ ma xam nañ maay kan. waaw may gërëm fajaa. gërëm parcelle Pikine Médina surtout ak Wakaam Wakaam du ma wax rek Wakaam gi yëpp franchement maa ngi leen di maa ngi leen maa ngi leen di gërëm. taxaw nañ la gërëm ñi nga xam ne xamuma leen te ñu ngi ma doon ñaanal bi ma nekkee fële. ndeysaan gërëm képp kuy yaay. di tàllal loxo yaay di leen wax na ma teel a ñàkk yaay. nañ ma waaw nañ ma nañ ma nañ ma yaay laa wax ah, nañ ma nañ ma ñaanal nañ ñaanal seen doom. parce affaire bi metti na metti na metti na franchement metti na te. génn naa ci biir mais xaw ma ban mooy ñëwaat. yàlla na la suñu borom fànn. déedéet yàlla bu beneen ñëwaat nag yàlla booy rek leel nag waa yow it. Ah? rek leel mu naan xaw ma ban mooy ñëwaat. saa ku ku ku ku nu ñu koy waxee ku lu ñuul lay sa maam bu ku dem lay sa maam foo seen lu ñuul daal waxuma la lu ñuul waaye boo seen lu ñuul sokolaa sax <laughs> yow ñu xeet rek demal sa yoon waaw sa jabar jabaram jabaram xam nga am nga jigéen yoo xam ne alaaji boo nekkee ci bu neexee dañuy nekk ak yow. mais boo nekkee yow xam nga leen may tere ngay def yow bu nga wan na de. sama gan gi daa war a lekk xaaral ma xool fu am na jigéen ñoo xam ne boo nekkee ci tolof tolof rek. waaw dañuy sàqi. Mhm. ala tolof tolof ngay xam ñu la bëgg. ñu la bëgg mhm. sa soxna nga bàyyi ko. Mhm. ñu ñu ko mu am doom tolof tolof gi nga nekk xaar na la xaaru la nan la ko dundee ak bébé yëpp nga wan ko ganaaw ci biir fi nga nekkoon nan la dundee loolu sa soxna. waaw loolu du ma ci tuuti rek laay wax. waaw pour tëj wax jooju. waaw biñ ma jàppee dafa ñëw mu ne policiers yi bàyyi ko mu dem ngeen tëj ma man. ak soxna sa soxna. waaw alaaj ko góor la de. kon franchement mënu ma wax ci moom parce que damay bañ a yàq émission bi. ndeysaan anam mi ngi kër ga mi kër ga. boo ko taxalee ñaareel ca laa lay rayee. <laughs> booy bul bul tax ñaareel de booy. <laughs> kooku li man. cam man fi ma bëgg a ñëw mooy. ndeysaan man damaa xamante ak moom. muy sama gars yi. non Ndiaye tey yaa ca kaw. maa nga ca kaw non kontaan mu ne ma li ma jàng. kaso dafa am solo. mu ne ma Cheikh xam nga ma. dama daan génn ba quatre heures du matin. nekk ci boîte yi et tout et tout ba ma génnee prison banaa ko. ah waaw mu ne ma Cheikh daan naa def yu nga xam ne affaire jeune la maanaam ay fowee cigarette fii ak yooyu. mais ba ma génnee kaso fu ñu toll nii cigarette bi ma xeeñee sax. ma daw nga bàyyi toog yaa ngi dégg ah. Ah. Ah. donc donc je crois bien que ni ah yow yow waaw jaajëf waay yow kas waaw cing cing ko fekk alaaji càmmoñ kenn du a joxe nit alaaji xam nga damaa jekkul baal ma ak waay baal ma wax nga dëgg de baal ma sama waa ji kon nga naan ataaya foofu baal ma bañ leen gàntu rek mais bàyyi naa ataaya sax <laughs> non naanal rek ataaya leneen la hmm. ataaya xéewal la hmm. te sax xam nga sama waxu maam ja sama waxu maam jaa ñëw nee na ma boo fekkee ñaar ñuy xeex ah. xoolal ka ca gën a ñaaw nga tëgg ko pes hmm. ma ne ko maam lu tax mu ni ma la nekk ah, kanam gaa na ca hmm. xol entre parenthèse xool xam nga ne entre parenthèse entre parenthèse saa neex kii dañ ko war a inauguré euh, booy ci ñoom pombiteer àdduna nga nekk di gis nga boo ko defee nii waaw ba ba def nii mu tardé bi waaw ah. moo ko ah ah Amama Cissé ci ñam man lii lii lii nan la ko doon waxee tey nga xam ne inna lazina boo gis amonoo ci topp a faqa dara alquran waaw ma jazakum naa ko lana xayran booy bu neex la nag waay waa léegi kaay ma laaj rek façon i sañse yi ngay sañse boo koy jëndee ay Alaska wala États-Unis wala Angleterre wala balaa nga koo laaj nga bàyyi ba laaj bu dugg nga ne ma balaa nga koo laaj ah daal yi ma sol de waaw lañ ko defaree fii nii waaw tuddal ki ko defar. mais yéen mais tey yóbbante na ma ci yow. ci yéen ñëpp ah franchement. ngeen baal ma ah. dama ko eh, fàtte woon eh. sax. waaw zoom zoom sur les chaussures de de Soroba. saa nee ba. Jair lañ ko rayee. nee na suba ngeen ñëw. waaw mu jëlal leen pointure. ah prochaine seen ngoonal bi. waaw ah. moo leen di solal Ñambe caam Ñambe Thiam. Ñambe Thiam mi ngi fii joor te li muy def dafa rafet. Ah, waaw man maa ngi ci kuy jëmale kanam sunu dëkk. dëgg la suma réew. te maa ngi ci moom Ñambe moomay solal lépp donc maa ngi koy ñaanal loxom set na. mais du lépp loo sol rek Sénégal ko defar nag yow it man damay seetaan say clip ak yëpp. léeg ma dugg Colobane. waaw defante. mu xool fëgg jaay waaw gën ci bal bi. waaw ñëw sol. sàmm léegi. waaw saa neex waaw. léegi daal réglé nga. léegi baa ma réglé rek. <laughs> waaw mais xanaa dinañu ñamal dara bokk parce que sawru baax na. orange money xam nga ko. booy bu sérieux nga booy. orange money. waaw. wax naa ko démb barki démb dama koy waxaat tey. waaw ko amul compte orange money yàqu nga. Sénégal lépp ko war a am. nañ ko ko ubbil sax moom. waaw affaire la ko ngeen ubbil ma. compte bancaire la bu nga xam ni da nga fay mën a jënd sa xaalis. xaalis boobu. mën nga cee fay say facture facture Senelec waaye alaaji maa ngi fii naa waxal kii ah. ngeen ragal muy bañ muy naan sériwul nit la naan mën nga cee fay say facture <laughs> mën nga cee jënd crédit mhm. waaw mën nga cee envoyé xaalis waaw mën nga cee recevoir xaalis lépp ci Orange Money mhm. kay station Total yu ne Sénégal mhm. cent trente stations totales yëpp. Mhm. ñoom ak Orange Money dañoo bokk ndey ak bàyyi àndoo liggéey. ak ay sib de cook Senelec ak. waaw foofu ngay fayee facture yi. Sonatel say facture ak lépp. Mhm. mais station totale yi. man nga jënd essence. Mhm. ak euh, Orange Money waaw. mën nga jënd gaz ak Orange Money. waaw bonjour ya fa ne. mën nga faa dugg ak famille bi. jënd lu neex. nga fay. ak Orange Money. te boo jëndee dix mille essence am crédit mille francs may la amul dara lu ci yokku. amul warga ji warga ji. tabaara tabaara la tudd. warga tabaara foo dem am na. te xam lu neex ci warga bi. waaw ah. dama bàyyi woon ataaya. waaw. Hmm. mais dinaa commencé waat naan ataaya. Ah. dem nga jox ma ci. dee ko dee ko Touba gaz mi. gis nga ko li mu toll. ay doomi réew mee ko moom. ay doomi réew baa fay liggéey am na certification ISO ISO wóor na sakkan na ñoom daal ñoo ñooñu dar rek dar ñu ci ngoon ngonnal li yow booy yow say mbir sax faw nga ñu koy yëgal ñu am ay affaire yuñ ciy def parce que yow booy vraiment booy bu jara jàppale nga yow ku sérieux nga xam nga mais xam nga mais xam nga xam nga lu leer hmm. lu am solo hmm. mooy ñu gis la nii rek waaw nga sol lu rafet hmm. wala nga dawal oto bu rafet rek ñu ne la yaa ngi ay milliards <laughs> toog ndax bu may fàttaliku waaw moom mii toog nañ fi di waxtaan waaw ñu jékki-jékki ñu ne na booy sóoru baa day na kaso waaw mu ne booy bi oto yu rafet lay dawal hmm. booy bi am na xaalis waaw ah. booy bi solin ñu seer lay sol waaw booy bi am na xaalis hmm. yow nag yow mais defe naa ne tey leer na non avant tout yow mi waxoon waaw yow mi seede woon hmm. waxaatal yow lu may seedeel gis naa la. maa nii maa nii ak scooter bi gis naa ko mu koy dawal ci kii bi nu mu tudd. ci géej ci géej rek nga ne borom ah, ana sa scooter boobu. da koo luyee. <laughs> dama ko luyee woon. fayoo ba léegi. ana sa oto ko luyee woon. sëwru ba ah. sëwru nag bu ñu nax. booy mën nga denc nga ko nag waaye <laughs> xaalis bi ngay luyee foo ko jëlee. nga de. Euh, denc naa moom. waaw xam lu ma denc. am na xam nga lan laa denc. waaw xol. xol bi nga denc nu mu mel. xol bu rafet. ñëpp denc nañ xol ah xol bu rafet nga denc. te àggale na ko te wér na la ni sa xol rafet na. doomu laaj yaqin bi doomu laaj. Ah. Ah. bul seede xolu jàmbur. mais ma xam ko. li ngay def sa dangereux. damaa bëgg a déglu ma. dama koo xam kii li tax yàlla suturaal ko tey jii mu génn heure bi c'est parce que xolam moo rafet. nit nag du ñàkk jaar jaar kenn gënu ko ci àdduna. te xale la man de doo ma jaxase ak yàlla. ma ne dina sa mbaxana bii nag de mais xale nit du ñàkk jaar jaar ñëpp am nañ jaar jaar. yow li nga bëgg yow li nga bëgg. yow li nga bëgg dinaa la ko andil ci kër gi. yow li nga bëgg dinaa la ko andil. Ah, yeer ah ci ma cherche mm. waaw dañ laa namoon donc xanaa da nga ñamal dara ak baro mi nga xam ne boobu ba tey mi ngi ci ma mm. mm. ah, baro mi baro xaaral baro lu amul seede baaxul ah nekk lu tuuti moom mii di liggéey ak suma pap suma rakku pap ñuy laasana maa ngi koy nuyu ñuy liggéey kër ga suñu kër gu mag mm-hmm. foofu lañ daan répété. waaw bu ko defee ma jël suma kooraa dem làkkatu ci coin bi. waaw même pas une minute lu ñu def yëpp ma jël ko. su ko defee damay toog ci mbedd mi lépp lu ñu répété mu koy tëggaat <laughs> su ma ñëwee la lendemain ñu dàq ma kii dafa sax de génnee suñu secret de ndeysaan su ma def na ci man lu bari muy tey suma indi woon kooraa bi mu téye xalam bi di nga comprendre lu bëri. yow da ngay hmm. jouer kooraa. yoon yemul ci benn. da ngay jouer kooraa. Hmm. waaw mais album bi. album bi nga xam naa yaa ngi waaj a génne lu. waaw dafa ne ma. waaw Cheikh ma ne ko naa mu ne ma lépp lu ma woyate actualité lay doon. ndax dama koo gis jaxran ñu won ma ko. non moom actualité sax la daan way muy préparé album bu rëy. album bi. ku mu toll daan na solal ay xale maye dab yi nag ak kii papis konaate rek la des ak suufee ci papis konaate waaye bu garaaw solal ay gone ay maye dab yi ak suufee waaw waaye bi bànneexu kat la de clip bi day bànneexu mais loolu doo ko bàyyi mais loolu doo ko bàyyi ah, loolu doo ko bàyyi loolu duñ ko bàyyi waaye bu laa waaye kaa wax benn affaire nag mm-hmm. gis nga jaar jaar duñu wax doomu aadama comme ni ma ko doon waxee léegi mais bu mu la tax a découragé ci sa àdduna ni nga doon defee ci say clip ak ni nga amee woon ambition di way di toj dëkk bi continuer noonu yaa ngi dégg nit ku nekk nattu dalay dal mais hmm. da ngay gën a yeewu pour ëllëg bu la yàlla mayee non si non pour ëllëg bu la yàlla man natt bu ma am dinaa ko gérer bu soobee day takk téere booy bi pour bu la yàggee xale yi naan waay waay dooru baa waay lay wax waay waaw waaw yëkkati ma benn solo ma xool ndeysaan xoolal laam bi bu naree demee noonu rek ñu bàyyi amul dégg amul seede ba ma rek ma dem dama bàyyi naa la kon ko waxoon ko gëm yaay ñëwal yow xëy na ñu fëgg ma ñu laajte ma ni maa ngi yaay ñu takkal ma monot yi loolu waay nag booy dafa tilis koñ bi ni màggal gu taas ñu jiital maag suma jabar ñu bale sumay doo am wuy naa wooy soo dundoon li du am foo nekk yaay kaay walu boo nekkee xale teel sotti leer boo doful baa nga dee demoo prison di nga tëddi hôpital mon silence ne signifie pas que je reconnaisse le fait de m'avoir enfilé le mbubu d'un coupable eh my boy mandu leen dëgg la la vie est bien perdu Pour la personne qui ne l'aurait pas comme elle l'aurait voulu. Eh boy Mandoulène. Pourquoi avoir perturbé ma vie? Pourquoi avoir me mettre en mal avec mes fans maintenant? Ça n'est nul ne peut échapper à son destin. Et tu en profites pour me mettre en mal avec mon pays, mon pays. Kon te dooma tax a bon bañ naa ay waay ci mentalité ndimbal ak yërmande laa jóg te woon nekk yow mbubu bandi nga enfilé bëgg a jël sa yére bandi enfilé ma téyel may booy dund boobu am mucc hmm. yootu sac daw agressé mbaa cambriolé téyel may booy liste boobu duñ ma ci hmm. kon bañ naa dooma tax a bañ naa ay ci man salité. di nga toj réew mi de 2014 bi sa 2014 a moo gën a métti. dëgg la parce yow a fu mu dem du man du man jëliwul. kon dañuy ñaan waa Sénégal ñu delloo ci xel yi. te bañ dégg tëll rek. ñu damm na ñu damm na waxal demal kër gi waxal. donc euh, euh, Soriba gëmal yàlla parce que li nga wax rek. nit dugg na fa bon génn baax mhm. nit baax na fa dugg fa génn fa gën a baax ñun ñaan yàlla nga liggéey ndax say fans parce que wax naa ko ngoonal lële leen nonga loo daan na wax ne hmm. bu doon maa ko wax yi rek man bàyyi naa ndeysaan mais fans yi laa xamul nu ma leen doon def dëmm sax bu ñu ma ko tamee dinaa way ñun ñi théâtre bi ñuy def lu ñu dégg ko sa neex mais lu ne lay dégg hmm. mais nee naa man fekk nit ñaa ngi bég ci man waxu ginnaaw faalewu ma ko donc waxu gunnaaw. ala accu de page bi. bul dellu gannaaw nga songal. waaw ah, waaw. waaw songal ala accu. waay yow daal lu ne foncière rek. waay léegi clip bi kañ lay génn. waaw fan yii rek waaw ñu créé bruit tuuti rek. ñu créé bruit projet projet yi. projet parce que projet yi projet yi. dama namoon su may fan. Mhm. te fas yéene na fu ñu nekk ma fekk leen fa. dëgg tournée nationale yi. ñu jógee ci loolu dinañ kale date yi ah. waaw dinañ ko joxe xam fii ñu ne chaque mercredi ku fa dem dina fa fekk sori parce que sa savan si namm nañ la pour l'instant tëgguma fenn mhm. parce que boîte yëpp ñu ngi may woo mais damay dama leen off non fépp ñu dem déjà avant tout damay tourner damay ah, damay damay commencé tournée nationale yi <laughs> bien après dooro kale datu soirée yi quoi hmm. donc ñu song tournée internationale yi waaw xaaral nag ba été bi ñëw dafa sedd jamono ji di hiver bi boo defee international glace ba kenn du ñëw eh, yaakaar naa Sanekh war na mën a war na mën a eh? àll yow man yow booy yow yow yow léegi yow yaa sama sama booykat yow ah yaa ko loolu xam nga lu ma lu ma daaj dafa ñëw ñu posé ko ay question répondre aayul ci réponse nii moom moom moom moom forum du réponse mm-hmm. da koy way da koy way la mu way lépp la li mu way le résumé li ko dal mm-hmm. moom ñun daf ñoo bàyyi ñu laaj ba xëm mu way ko ci ci ci ci ci deux minutes yi mu way nii mm-hmm. te xam naa ni nitu sutura la mm. am na lu mu xam denc ko ci xolam bugg ko wax ci émission bugg ko fësal mais am na xam na xam na li ko dal lan la lu dul li mu tontu waaye yàlla bëri yàlla yàlla def na jàmm yàlla noppi yàlla noppi yàlla noppi eh, booy yow simmi nga ma yàlla noppi waaw ah déet ba muy gone waaw baro da daan waaw di xalam muy woy di sàcc di ko woy ca gannaaw damaa bëgg tey baro xalam wala di guitare mais booy bi war nañ moo kii nan kii war nañ koo mën a jàppale de ah. xaw ma fu koy jaar ba jàppale ko hmm. mais war nañ koo mën a jàppale bu baax ba mu xam ni jàppale nañ ko kii ñun waa Ngonal dinaa am ku ma la mettre en rapport yow xanaa xam naa màngaan nga koy boole noppi rek yow dinaa am yow dinañ la jël fii am fu la yóbbu làq la am lu ñu def ci yow incha allah waaw incha waaw noppi ci lii waaw avant may ñëw ci loolu foog ma gërëm gërëmal bul gërëm gërëmu kii nag mbër du ma tur de bi ma sante yàlla julli ci yonent bi <laughs> sant sama waay waaw may gërëm suma papa. parce que waaw diggante papa ak doom la ko te man rek la am ci doom. Hmm. d'accord fi mu namm ma yegg fa xam naa dinaa fa yegg te yàlla xam na loolu. incha allah te toog xam ngeen loolu. incha allah dinaa fa yegg ci kàttanu yàlla. sonn na trop te juruma sànni ma ko waaw jàpp na ci. gërëm suma maam bu baax suma maam mënu ma wax ci moom mais ñëpp xam nañ suma diggante ak moom. Hmm, hmm. gërëm ma ma siisee. kooku moo tax suma papa daggul bi ñëw suma problème kooku moo tax suma famille ñëpp toog tëdd nelaw te xam ni lii day jeex fayuma ko joxuma ko sexaluma ko lem. suma jëkkëru avocat bi suma jëkk non non suma jëkkëru cousine la. waaw ah, sa mais tax na jooyuma dara. Mhm. tax na ba tey franchement mënuma wax ci moom mhm. te tey. yàlla yàlla baax na ko ma koy ñaanal moom it fu muy séen fu mu muy séen pour ma yegg foofu. Mhm. ci kàttanu yàlla dinaa atteindre. non di nga dem sax booy. Mhm. Mhm. waaw di nga fa dem incha allah. di gërëm Sadibou di gërëm waa Mbour bëgg nañ ma dañ daan def seen i kaar di ñëw visite di gërëm Sénégal yëpp. jeex na Sadibou maa ngi koy gërëm di gërëm suma jabar di ñaanal sumay doom di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni franchement ay samay fam di gërëm Papis Konaté tamit bu baax a baax. jaajëf Soriba ñu ngi gërëm waa Orange Money di gërëm Touba Gaz di gërëm Warga Tabara di gërëm waa Ngonal gi yëpp. Cotons Club. kii restaurant la. gestu gestu. gestu gestu gis nga Cotons Club moo nga dafa dem di naan say neex di lekk. daa yaa ngi sax am na sax ay chambre d'hôtel yu neex am climat. waaw hôtel mooy def hôtel ah? def hôtel yow ataaya ji nag tamit fa ma ko jàngee a woon soxna loolu loolu ataaya ji ma leen jox tey dama koo jàngi woon Maroc ah waaw alaaji màngaan dama jàngal façon <laughs> ataaya bi leer na <laughs> ak ñoom Fatima ak ñoom ñëpp ñëw sumbulu doo gërëm <laughs> demal ca baro suñu booy bi nekk États-Unis booy gi mu jóg baro ñu daagu damaa na ma way tey laa lay wan la bëggee waa bëggu la faale woo la ma bëgg la joo la sama chaque jour ma ñëw nga dàkk maay tey laa lay wan ni faale woo ola joola sama xol ma ñëw nga dàkk maay di ma di wax man lu ñaaw xanaa xamoo ni man yaa may daaneel jox naa la xol bi nga mën a sentir man mi ne soo bëggee dund la la neex ribo dama toppatoo la sëy bi waaw waaw seet si ma <laughs> dinaa la dese lu ngoo neex na ngeen ma see ah. tey seetlu naa ni dañu maasee man ak kon jaral nga ma saaneex buj bu suñu dekkee ba su su ma narul gisanteek yow kon damay ñaan yàlla soppi ma suuf nga jaar sama kaw ba aljana yi ma am naa la xol bi nga mën a santi soo bëggee dundu la la neex way dama toppatoo sel sel gi waaw waaw foofu la safee ah ah woy bu bandee ngi nii du ñala mi na jëli yàlla ñëw na eh, ko kërëm ndeysaan bu ngeleen ko yalla jëli mi naa jëli yalla xaradi yara beng loola bi maamu kaw ñi hee xaradi yara na imala wuli tuña gebe taxala fen bin yoro ni bolo xar jigéen ñi ñaan tolu koso basto tolu sigito bastoro momoɗo yamayima yomi décroché ki li gonon rek ko monaɗaɓona lamatako li golon rek ko artamaram molo ko ba e gonal a gani fof ñu dugg studio def dara pour gonal waaw da nga bëgg dugg studio groupe bi fof ñu a lu ma la nommé tey l'homme de gonal ko fee nommé kenn l'homme de gonal moom